jërëjëf gannaaw bu ñu sant yàlla li ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di remercier conseil municipal bi nga xam ne ñëwoon nañ tey ci woo gi leen woon ñu war a wate budget bi ak euh, décembre deux mille vingt euh, le vingt sept décembre deux mille vingt pour budget deux mille vingt quatre ñu ñëw ñoom ñëpp ñëw donc ak euh, quatre vingt conseil ñëw nañ sur cent ñi ci des ñëw nañ ak seen i procuration ñu wate budget bi ci kanam sous-préfet bu arrondissement Ndam ak euh, PR bi nga xam ne mooy percepteur bu département de Mbacké ci ñu ñu ñu wate ko euh, ci ci euh, majorité boo xam ne ni am na benn nag absent boo xam ne watewul loolu nag nang xel nangu na ko parce que dajale juróom-ñett fukki nit ñëpp ànd ci mel ni mbir yombul xëy na du ñàkk ku ku ci am ak wuute loolu waaye li ëpp solo rek majorité bi wate nañ budget bi budget bi nag ñu defe naa ne ne exposition bi ak rapport bi en direct la woon ci euh, presse bi defe naa ne déglu nañ ko ñëpp soxlaatul ñu di ci euh, dellu si waat mel ni dañuy lire rapport bi ñaari yoon li ci def rek mooy question yi nga xam ne bu fekkee nga am ngeen ci ay question yu ngeen war a wax ci rubrique wala secteur bu nekk bu ngeen ca posé question bi ñu tontu leen li leen ci war a tontu. li li tubaab di wax avant tout la santé mën nañu njëkkee ci santé mais éducation yu loolu lu ñor la. mais euh, santé bi comme li ma la wax santé bi année bii ñu génn deux mille vingt deux deux mille vingt def nañ tabax nañ cinq postes de santé équipé ko day wax ba benn case de santé. Euh, donc euh, jàpp lu bëree bare bëri réfectionné lu bëree bare bari ci poste de santé yi cinq postes yooyu mooy douzième fukki poste ak ñaar yoo xam ne commune bi tabax na ko ci huit ans yi fukki poste de santé ak ñaar euh, équipé ko loolu aussi ba pare aussi di leen jàppale ci médicament chaque année boo xam ne nii moom la ñuy jàppale malade yi Euh, donc di accompagner euh, district bi muy centre de santé bi bi nga xam ne moo fi nekk mais yemuñu ci loolu en même temps ñu ngi tabaxaat beneen centre de santé boo xam ne ci Daaru Manaan lañ ko bëgg a def donc euh, lancé nañ appel d'offre bi attribué nañ ko joxe nañ signé nañ contrat bi entreprise bi war na tàmbali dossier bi actuellement fi ma lay waxee mi ngi ci mi ngi Thiès pour immatriculation contrat bi mais commune bi lim ci war a def def na ko xaalis bi disponible na loolu yëpp ci santé lañ ko def ah, budget bi ñu taxawal ñu ngi ci préparé nañ pour tabaxaat yeneen quatre postes de santé réfectionné aussi trois postes muy sept postes sur ak ak plus douze muy dix neuf yoo xam ne nii ñu ngi bëgg a euh, ñu ngi ko bëgg a def maanaam ci dëkk bi ci entre deux mille vingt deux deux mille vingt quatre ci wàllu éducation li ma la wax wàllu éducation dafa nekk lu lu mu amul lu ko gën di farata ci Sénégal amul lu ko gën di farata ci dëkk bi ñu nekk di Touba ndax dëkk bi ku nekk xam na ne Sénégal population bi ay ndaw moo ci ëpp te génération bi ñuy wax ndaw yi muy muy quatorze cent à vingt cinq ans yi génération bu ko raw mi ngi topp ci seen kaw di ñëw muy ñi nga xam ne dañoo toll ci war a dugg jàng ak muy jàng ñooñu nag su fekkee ne mi ngi ci sa xel yaa ngi koy bàyyi xel war nga ñoo war nañoo bàyyi xel bu baax a baax baax éducation éducation secteur la boo xam ne euh, war nañ ci bàyyi xel te ñu ngi ci bàyyi xel loolu rek laa doon leeral conseil municipal bi moo tax daaw ñu ngi tabax vingt salles de classe lañ daan def par at ren dañoo programmer tabax cinquante salles de classe cinquante salles de classe li tax Euh, aussi ñu gën a jàpp ci loolu mooy dañoo am déficit de infrastructure benn infrastructure rek lañ am ndimbal nga xam ne amuñu ci déficit muy université université parce que université Serigne bi Serigne Mountakha tabax mu war a jël ay trente mille personnes université Serigne Mourtala bi bu bi nga xam ne Serigne maam moo ngi koy toppatoo ñu di ko sant baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla guddalu fanam te wéeral cëram ak taxawaay bi mu am ci njàng ci national ak international loolu aussi kenn mënul tudd éducation tudd am njàng Touba te tuddoo école Al Azhar ou te tuddoo Serigne Moutala tudd Serigne Mamor mi nga xam ne li wolof di wax mujjewul possible mu réer aussi yal na ko yàlla dolli kattan ak ak wér. waaye Serigne Mountakha 30 euh, université bu toll nii 37 milliards mu tabax ko te boo amee université dangay am ñuy dem ci université bi. parce que bu ñu préparé wul xale yi ba ñu war a mën a dem université duñ dem université kon tabax nañ université bi université ay étudiants lañ yor donc da ngay jàng alxuraan ba mokkal dem jàngi majalis wala nga jàng arab ba mokkal dem jàngi xam-xam donc euh, di différentes matières nga xam lan ngay suivre wala nga jàng école ba am bac dem euh, wuti formation te am na daaray alxuraan am na majalis am na ay UFR am na euh, euh, centre de formation yooyu nag pour il faut que ñu préparer xale yi bañ mën a dugg ci université yi jàng nii université Serigne Mourtalla Cheikhul Khadim et université Al Azhar loolu nag moo tax ñu def suñu yitte ci njàng mi ci jàppale daara yi xale yi jàngale alxuraan muy rabita bi ñu jàppale leen xale yi gën a nekk ci ay conditions yu baax ngir mën a mokkal ba dem ci majalis bi jàngi xam-xam bu ñu fa jógee dugg ci centre de formation bi ñu former leen ñu spécialisé wala ñi nga xam ne aussi ñu ngi jàng français bu noppee te bëgg formation dem ci forma euh, centre de formation bi ñu former leen ñu mën a génne ak ay seen i ak donc loolu moo tax ñu gën ci jàpp fa di di di di ci bëgg cee def liñ mën yëpp ak liñ mënul comme niñ ko defee daaw ren danañ def lu ko raw at mu jot ñu fas yéene tabax cinquante salles de classe ba nga xam ne euh, ni ñu a ah, suñ borom dimbalee ci amuñu parce que infrastructure euh, université rek lañ amul déficit ci infrastructure ndax ñaari université yi fi nekk mais li ko li ko mooy lépp ci infrastructure publique dañ cee am déficit ndax booy seet dëkk bi ni mu toll trente école publiques moo nekk ci commune Touba boo xam ne nii moom la état bi di subventionné moom lañ yor moom lañ seere mais heureusement nag am na ay euh, école privée yu bare bare bare yu fi nekk loolu tax sax ndimbal la ci mais boo xoolee xale yi aussi ni ñuy génne jóge Touba dem Kellel jàngi jóge Touba dem Touba Belel jàngi muy 20 kilomètres jóge Touba dem Kéré Mbaye Kéré jàngi muy 25 kilomètres de ba Touba Bogo donc foofu yëpp ñu ngi ko dafa bari ay ay xale yoo xam ne leen fa yóbbu ñuy jàngi loolu nga xam ne déficit de de de classe la loolu tax ñuy renforcer les école publiques yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ngir xale yi man cee dugg jàng ndax xale aussi jóg dox vingt cinq kilomètres jàng doxaat vingt cinq kilomètres ñëw muy cinquante kilomètres loolu métti na ci xale buy door a dugg école bul wax maire Touba am na ci déficit maire Touba amu ci déficit Touba moo ci am déficit maanaam travaux com travaux du du compétence su commune ba mu ci am déficit travaux euh, waari la état bi moo ko yor Ageroute la ko jox moo koy liggéey mais dëkk bi moo demee noo xam ne ni mu toll ci ci population ak ni mu bëree li mu laaj ci ay waar am nañ déficit waari yi loolu loolu moo tax bi ñu xoolee am na torsion yu mat vingt cinq torsion yoo xam ne tey obligatoire la ci commune ci dëkk bi ñu ñu ñu ñu def ko tali te amuñu ko donc état bi mi ngi ciy def li man mais en tout cas a un problème des des varies ci Touba loolu moo tax commune bi ne dana ci dugal loxoom jënd matériel lourd maanaam nœud yi ak tali yu toj yi ak dagg-dagg yi nga xam ne lu ndaw la loolu ñu ut service bu koy defar nga xam ne bu tali tojee dana ñu ko man de réparer ko mu mu yombal dem bi ak dikk bi ci circulation bi ba nga xam ne bu nawet bi ñëwee du neeti yoon sàngam dafa coupé ba kenn mënu cee dem wala pax yi oto yu ndaw yi mënuñ caa dem parce que buñ ci demee dañuy am problème loolu lañ ne danañ danañu jënd matériel lourd def service yooyu ngir ka di ko di ko di ko mën di réparer maanaam entretien de route li ñuy wax maanaam def service entretien bi boo xam ne nii yu ndaw ndawaan yi xëy na su fekkee commune bi def na loolu ànd ko ak bonne volonté yi ak association yi fi nekk donc euh, fu mel ni Touba kanam ak euh, euh, ma isbu yi ak leneen ak leneen comme dëkk bi dëkku social la ñun ñëpp ndigalal sëñ bi la ne ñun ñëpp dañuy liggéeyal sëriñ bi te ñun ñëpp dañoo ànd bëgg dëkk bi bëgg defar dëkk bi ci liñ ci man donc ñu ànd di ko defar ngir que jafe-jafe yu ndaw yooyu dootuñu ci xaar état waaye nag teewut ñi nga xaar état ci lu bare bare bare waaye yooyu aussi ñu di ci intervenir mu mu taxawee ndimbal na ca fekk loxol borom. ah xam nga loo loolu ndo ndoxu inondation bi moom ñoo ko gisandoo. dama ne la 2019 ba fii ñu toll amaguñ amaguñ ci solution maanaam amaguñ ci sa maanaam jeexagul daal lañ doon dund 2000 année 2019 ba tey jii loolu la ñuy dund donte nag état bi def na ci lu bari. jéem na ci ba sonn def na ci lu bari Touba ci kanam jéem nañ ci commune bi dem nañ ci mais dama defe ne bu ñu demee cinq an ci benn mbir xool fi ñu ci nekkoon jógeeguñ fi war nañoo seetaat beneen CMA ban CMA lañ war a tegaat pour solutionner loolu euh, définitif solution définitive parce que li ñuy indil problème toujours mooy solution provisoire solution provisoire boo ci dëkkee lu ñëw nga def ci solution provisoire doo jóg ci problème da sa problème day gën a yokk donc loolu laa ne commune bi waxtaan sa jot na ndigal ci sëriñ bi pour ñu waxtaan ak conseil municipal bi waxtaan ak chef de village yi waxtaan ak délégué de quartier yi ak conseil bi ak euh, état Sénégal ak mbooleem ñi nga xam ne ay acteurs lañ ñuy yëngu ci développement ci dëkk bi ak social muy Touba ca kanam muy euh, euh, is bu tarxiya muy waa Touba xeb muy waa Madlabul Fawsayni daayira yooyu nga xam ne daayira li yu mag lañ ma juróomi daayira te nekk ci dëkk bi maanaam di ay ak association yi ñu ànd toog waxtaan ko def ak état bi def benn séminaire lël boo xam ne dañuy def ñetti fan ñeenti fan ak experts yi xool fan lañ nekk fan lañ nekkoon fi mu ne fan lañ toll fan lañ war a dem lan moo ñu fa yóbbu li ñu fa yóbbu lu muy jaar ñu def loolu def ko benn tënk ko benn dossier document yor commune bi yor ko sëriñ bi yor ko état Sénégal yor ko lépp lu ñuy defati xam ne def nañ plan développement local boo xam ne maanaam lépp lii mooy nekk plan développement local boo xam ne deesuñu dootuñu ko wàcc ñu def ci priviritaire yëpp li nga xam ne dëkk bi munu koo ñàkk te moo li war njëkk ñi njëkk ko li ci war a topp ñu topp ko defe naa ne nga xam ne fii ak deux fanweeri at ci kanam dañuy xam ne Touba lii lii la ñuy calculer fii ak juróomi at ñu atteindre loolu ba nga ba mën a génn ci jafe-jafe yi nga xam ne nit ñaa koy dund bu nawetee ak nit ñaa koy dund ci tali yi ci éducation ak ci sécurité publique. waaw ndox mi ñuy naan aussi bu ñu bu ñuy def daje boobu du ñu bàyyi dara donte ndox mi ñuy naan nag xam nga dénkuñu ko commune bi commune bi yoru ko da cee da ciy jàpp di ci def lim man su ba su forage paane ñu ñëw jàmbat ko sa commune bi commune bi jënd pomp jox leen. su armoire électrique paane ñu ñëw wax ko commune bi commune bi jënd am armoire jox leen loolu la waaye commune bi nag yorul ndoxam naan mi nga xam ne dafa sañ di ci def ak di ci dindi wala mu di ci teg wala mu di ci teg waaye nag lu ñu ñu sant lu ñu ñu wax ci ne lii am ne seen jafe-jafe ñun danañ leen jàppale ca loola. loolu aussi ci lël bi ñuy def danañ ci ñëw danañ ñëw ci ndoxam naan bi danañ ñëw ci ndox indonation bi dana ñëw ci tali yi danañ ñëw ci sant bi danañ dem ci éducation bi danañ dem ci social bi. donc dana dem ci environnement bi loolu yëpp defe naa ne bëgg nañ ñu tëgg ko maanaam lépp tënku ko def ko ci plan développement local bi ñu xam ne lii mooy feuille de route bi nga xam ne moo war a dëkk bi ci lii yóbbu ko fii pour askan wi am jàmm ci ndigalal sëriñ bi. waaw loolu euh, wax naa ko ci bi may tàmbalee wax dama ne ab dëkk buñ demee bañ naan la bañ naan la yaay troisième ville dañ daan wax mooy quatrième ville ba mu yàgg ñu ne mooy deuxième ville ba mu yàgg ñ ne mooy première ci population. ne ab dëkk boo ko yoree nekk ci muy développé nii Touba di yokkoo nga xam ne mi ngi yokku te yokk gi kenn wax mënul ne fii lay yem ndax yaakaar naa ne euh, ni ni ni ni rythme bi muy yokkoo su fekkee ne euh, waxuñu ci dañuñu dem ba suñu jafe-jafe dafay jëm kënam la jëm loolu moo tax ñun ñu war a toog xalaat ne ah dëkk boo xam ne nii ne mooy première ville ci Sénégal donc infrastructure yi am nañ déficitu infrastructure publique fi mu nekk nii lu baree baree bari donc war nañu toog nag xalaataat te nan la ñuy def ba am infrastructure yoo nga xam ne dëppoon na ak dëkk bi dëppoon na ak po équilibré la na ak population bi loolu nag li koy waral mooy toog waxtaan ndax commune bi mënu ko commune amul xaalis bu mu mën a tabaxi infrastructure yi commune bi neuf compétence yi ci la am ci la yem moom lay ci la mën a yëngu état bi aussi dafa responsabilité am la mu jël li nga xam ne nii mooy infrastructure yi nga xam ne dañ ko war a def ci tali yi ci hôpitaux yi ci ci ci école yi loolu aussi mu mu mu dolli ko donte ñu ngi ci jàpp ñoom ñu ngi liggéey nag mais dëkk bi ni muy doxee dafa jiitu population bi dafa jiitu maanaam euh, évolution euh, infrastructure yi ni muy demee loolu moo tax looloo tax ñu xalaat ne kuñ jox ab dëkk muy man muy conseil municipal bi ñu teg ñu ci kanam commune bi maire bi ñu jiite ko buñ demee ba lu mel ni am war nañu toog xalaat